baax yi nuyu bokki taalibe yi di nuyu bokki julli yëpp di ziar ñëpp di sant ñëpp moo ngi gën a yaa cant sunu borom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

tolluwaay bi jamono ji korona lu ko waaye wax tooñ ko ndax suñu boobu mooy def mooy dindi korona suñu boobu danoo sàkk sàkk ko muy wéy ci ndigal luñ ko digal mu def ko fu ñu ko yemloo mu yem fa xanaa noon kay nu war a seet suñu bopp nun ñi nga xam ne doo nekk ci diggante sikki sàkka lu jiitu weddi aku déng-déng yi nun doomu aadama nun ñëpp li ci ëpp ci noonu rekk la nekk ñi ngi déggante weddi ak ngëlëmte ak réer kon noo war a jugaat jóg suñu bopp seet suñuy suñ tolluwaay ñu war a delloo lépp ci suñu borom ndax mom moy def moy dindi mo xam limi def mo xam nim koy defé mo xam liko tax di def nun kay dana war a góorgóorlu rek ci gëna xam li ñu diggal nekk ci tax ja dak gëna xamit li ñu tere nu du ko daw suñu xelu bu bëkkan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 te fas yéene rek nekk rek ci li nu nekk loo mu lim nekkoon rek ak lum nu jafe-jafe te doyloo ko sëkk ndax fàggul nu lépp lum nu war a faggul tey ëllëg fàggu ko lu mu war a ñaan boroomam tey ëllëg ñaan na ko te juba muy pàggu téeb bi jubóo na boromam bu dee ñaan gi borom nangul na ko ko kon kay dara warul lul waxtu wu ne nuy gën a wéetal yàlla waxtu wu ne lu gën a sax ci jaamu yàlla sunu kem kàttan loolu mooy suñu wartif àdduna moom mel na melo bi rek laa am sa mu sa jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk du nu yëg fitna fitna jenn ju nu yàgg ju nu gàttandu du nu jaaxle ci dara ci met mbir kon li nu li nu jikk loolu rekk nu jikk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

doy na sëñ bi moom looloo ko fi andi woon moom la fi nekkee woon boole ci nag di gindi jaam ñi ci seen borom di wommat jëmale seen borom sëñ bi loolu rek la fi nekkee woon looloo ko fi andi ci loolu rek la nekkoon kon nag ñun sant rek lañ war a def sun borom mi nu booleeg sëñ bi sant sëñ bi nga xam ne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 ak jariñoonte rek moo ci juddoo ak ku laabirante ak ku dimbalante loolu rek moo ne moo ci juddoo kon nañu góorgóorlu bu baax nañu góorgóorlu bu baax a baax loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne eh,

noo ngi sant ñëpp eh, di ñaan sunu borom ci mbaaxu sëriñ bi eh, tolluwaay bii nu toll eh, mel na ne tiital na ñépp waaye dan faaw ñaan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 waaye euh, sunu xel dal na xam nañ ne jaamu yàlla moo moo moo yombul waaye mel na ne kenn ku ne ci ñun ñu ngi ciy def kem kàttanam waaye nag màggu son sunu borom bi